dali nag jàmm Ousmane Tanor Dieng ginnaaw bi mu génnee àdduna ba léegi nii kan moo koy wutu ci boppu parti socialiste coow li di wéy yéen kaay gii Dakar Times mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des ak li nga xam ne moo baax ci parti socialiste baax ci Benno Bokk Yaakaar baax si jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi mooy Aminata Mbengue Ndiaye wuutu ki nga xam ne mooy Ousmane Tanor Dieng ci boppu parti socialiste ndax am na dayo bi am na fula ji am na fayda ji. ba pare tamit yenn yu ñàkk fayda yi ci wàllum politique kenn musu saa dégg Aminata Mbengue Ndiaye moom Dakar Times mooy wax di xamle ne ki fi nekkoon maire bu Louga moom nag musul nekk ci ay tappale maanaam ay caaxaan ak di manœuvrer def ay njuuj njaaj ci lu jëm ci mbirum politique wala nag ñu koy dégg mu yëkkati ay kàddu yu ñàkk worma ba pare tamit ku jàng la am xam-xam nangoo liggéey la du suñuy kàddu yéen gi di moo xëy di Vox Populi ñu fekk fa professeur Moussa Diaw nekk ingénieur chercheur science politique moom nag la xam xamle mooy dëgg gi nag nañu ko wax ndax li am ba des mooy Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne Mbaye Thiam ngir nag ñu daal di jubbanti parti socialiste boolewaat xol yi ña demoon ak ñëpp ñu andiwaat leen loole nag lu jafe lay doon te nag mu duñu wax ne mënul nekk waaye en tout cas li am ba des mooy mu am dina bett ñu bari ndax nag ki xam ne muy Khalifa Sall moom bi ñu ko jàppee tëj ko si kasu bi ñu bëri ci parti socialiste dañoo banque seeni yoxo maanaam jàppali wuñ ko benn yoon te loole nag metti nañ ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Ababacar Sall yéen kaay gi du source a ñu fekk fa Serigne mbay Thiam moom nag muy yalwaan di yalwaan di masata ngir nag ñu daal di gracier ki nga xam ne mooy xalifa Sall waaye nag ñi nga xam ne ñoo ànd Khalifa Sall ñoom nag bëgguñoo dégg benn yoon li nga xam ne mooy ab grâce ba tey ci biir journal bi di Vox Populi xam ne mooy secrétaire à la vie politique parti socialiste la mu xam le mooy jamono ji coow li nga xam ne yëkkati nañ ko ci kan mooy wutu Ousmane Tanor Dieng maanaam amul benn njariñ ndax ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti socialiste bu ñu demee ba waxtu wa jot ngir ñu waxtaan ci seen biir dina daal di am Abdoulaye Gallo Diawo moom nag mu bokk ci bureau politique bu parti socialiste ci biir journal bi la mu xam le nee na Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ni Ousmane Tanor Dieng amagutoon sax ñetti fan ci biir suuf mu jóg di indi ay coow ci kan moo koy wuutu loolee nag ay tojaange la te nag mbir la moo xamante ni du yoon te nag waru toon te nag li am ba des mooy parti socialiste dañuy saa soxla nag ay nit ñoo xamante ni ñu am gëm-gëm lañu ay nit ñu am bëgg-bëgg ba tey ñu bàyyi mbir moomu wax nag ci l'observateur gi nga xam ne daan na xëy wax ci scandale bu du Wuri jàlloo def ci ab enquête mooy ki nga xam ne jàppoon nañ ko ci garab yi baaxul yi ci tuubaa mujj ko gracier journal bi na Wuri Diallo mos naa wax benn garde pénitentiaire na ko coow li mooy bari rek waaye nag dañu may bàyyi ma dem ñibbi journal bi nee na en tout cas li am ba des mooy Amadou Wuri Diallo jamono jii sax dafa daa di feebar te du feebar te apaala màggat la am na soixante-dix-huit ans yéen kaay gi réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Ahmed Amar mi nga xam ne moo jiite woon enema ginnaaw bi mu faatoo bitim réew moom nag suba ci alxames ji ab néewam dina dikk Sénégal ginnaaw suba ci nag àjjuma ji ñu daal di Touba les échos ñu fekk fa Déthié Fall mi doon liggéey ak moom la xam xamle nee na Ahmed Amar moom nag amoon na yéene tabax benn hôpital international ci Dakar ba tey ku yàgg jàppale étudiants yi la ak ñi nga xam ne ñooy way laago yi yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ne ndekete yoo Blaise Compaoré moom nag ay vacances am ci Sénégal la ko nag amalee woon la ca xew ak yëpp ma ngi ci biir journalub group promo consulting bi yéen a kaay gii di stade xëyal ñu ci Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne jamono ji mën nañoo wax ne ay bis daal di dem fi nga xam ne mooy Paris Saint-Germain Didier Drogba moom nag la mu xamle ne nag CAN 2019 bi li ci Riyad Mahrez bu Algérie wane Mohamed Salah wane wu ko Sadio Mané kazalika Lac de Guiers numéro 2 ci biir journal bi moom nag la xam xamle nee na du mayati benn yoon xale yi chance ndax nag kuñ ko si boole rek defal na la affaire jamono ji nag muy xaar kan mooy daan diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ngir nag mën a janoo ak moom.